sëriñ Moulay Bousso sëriñ Moulay buso mi ngi gane àdduna ci atum 1896 ci dëkk bu ñuy wax woobe woobe mi ngi nekkoon fii ci wetu Sonatel bi dendoo nag lasaruk sëriñ Mbàkke Bousso foofu la doomu sëriñ Mbàkke Bousso bi gane àdduna di sëriñ Moulay Bousso ci atum 1896 sëriñ Moulay Bousso doomu soxna Xari Mbàkke la soxna Xari Mbàkke doomu Maam Mor Anta Sali Mbàkke la soxna Xari Mbàkke mook sëriñ Cheikh coro mbàkke moom mamor anta sali mbàkke ak kii di maam balla mbàkke moom mamor anta sali mbàkke ñoo bokk seen waajur wa soxna coro ak kii di mamor anta sali mbàkke kon sëriñ Moulay Bousso jar baatu ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddiim la ndax soxna xari mbàkke ak seexul xaddiim ñoo bokk mamor anta sali mbàkke soxna xari mbàkke moom nag moo meññ kii di sëriñ Moulay Bousso waajuru sëriñ Moulay Bousso wu góor mooy sëriñ mbàkke Bousso sëriñ Moulay Bousso am na ñu mbokkal soxna xari mbàkke mbàkke ñu ràññee ci taawu sëriñ mbàkke buso ba di sëriñ du buso nekkoon na sax xalifa bu njëkk bu sëriñ mbàkke buso ak kii di sëriñ asan buso moom sëriñ mbàkke buso ak ku ñuy wax soxna roqiyatu buso bintu sëriñ mbàkke buso ak kii di soxna xari mbàkke ak ku ñuy wax soxna faati buso bintu sëriñ mbàkke buso soxna faati buso mi sax moo meññi soxna mbenn baara ak moom moomu di sëriñ mulaay buso mi ñuy waxtaane tey jii kon soxna xari mbàkke juróomi bant la am ak kii di sëriñ mbàkke buso ñett ñu góor ak ñaar jigéen bi mu matee dal lii di alxuraanul karim sëñ ibrahima buso moo ko jàngal lii di alxuraanul karim sëriñ ibrahima buso nag ak soxna awa buso mi meññ cheikh mamadul faadal mbàkke ñoo bokk waajuru góor ak waajuru jigéen ginnaaw sëriñ ibrahima buso mi ko jàngal lii di alxuraanul karim nag waajuróom wa di sëriñ mbàkke buso moo ko tëralal lii xam-xam sëriñ mulaay buso sëriñ ibrahima buso ak waajuram sëriñ mbàkke buso ñoo ko jàngal lii di alxuraanul karim ak lii di xam-xam bi muy gane àdduna dafa tombe baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim dem ci géej gi kon bi sëriñ tuuba seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ci 1902 bi mu jógee daaru salaam ci ngan gi bi mu ñëwee daaru marnaan la ko waajuróom waddoogu njëkk a gisaleeg sëriñ tuuba seexul xaddim seexul xaddim amaat fi ay takk-takk demaat ci dëkk bii di gànnaar mu des nag di jàng boobu kat sëriñ Moulay Bousso ci jàng la tollu ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof googu gisee na fa ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci yoon wum àndoon ak waajuram sëriñ mbàkke buso keroog ba ñuy dem sax ñi ngi jaar ci ŋayuk maam Balla wàcce nañ fa lii di kaamilu alxuraan ngir ñaanal jëmm jooju ginnaaw ŋay ci maam la dem nañ itim ci maam maaram jàng fa lii di kaamilu alxuraan ci la ñuy doog a egg nag ci dëkk boobu di ca yéen jolof ziyaare ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waaye daa delsiwaat ci loxo yi waajuram ndax kat booba tuut tànk la ci wàllu zaayir mu wéel lii di am njàngam nekkit ci ron waajuram sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Mbàkke Buso nag tàggatoon nekkoon ku ci géeju bind na itam lu bare bare bari moom sëriñ Moulaye Bousso nekkoon na itam ku mag ñi ràññee woon ci ëttub ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim mbokki Bousso bee itam xàmmee woon nañ ko bu baax a baax naar yeeg yu baax yeeg yii daa seet si ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim itam xàmmee woon nañ kan mooy sëriñ Moulaye Bousso ci atum 1921 nag ci fukki fan yaak juróom ci weer wii di weeru korite la ko sëriñ Mbàkke Bousso jox kii di sëriñ Touba Seexul Xaddim jébbal ko ko ci njaareem boobu sax la ko njabootam di fàttaliku moom sëriñ bu Bousso mooy bis bi ko waajuram joxe ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim sëriñ Touba Seexul Xaddiim féetale ko fi ko sëriñ Mbàkke Bousso féete woon sëriñ Moulay Bousso dox diggante sëriñ Touba ak kii di sëriñ Mbàkke Bousso bu Seexul Xaddiim masaa soxla sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Moulay Bousso mooy dem ndax kat léegi moo wuutu waajuram ci ëttub ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim kon cër bi waajuram amoon ci ëttub ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim bi ko sëriñ Mbàkke Bousso jébbalee sëriñ Touba seexul xaddiim foofa la ko seexul xaddiim féetale woon sëriñ mu laay bu sa ku jege woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la ba tax na ñaare bu ko seexul xaddiim masaa wax dara dana ko bind sëriñ tubaa seexul xaddiim dajale woon na leen ci benn bisub ajjuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi di weeru rajab sëriñ mu laay bu sa ma ngay wax ne bisub keroog seexul xaddiim mu ngi leen doon wax ci lii di wàllu tuub ci ku ko def ngëneel yi lu ci suñ boroom mën a képp koo xam ne nii nag defoo ko bépp jafe-jafe boo am moom moo la ko teg képp ko am ay jafe-jafe soo tuubee loolee mu saafaraw léeg-léeg itam nit am ay gàllankoor te dara tegu ku ko lu dul ñàkk tuub delluwaat ci suñu boroom ñu teewlu bisub keroog li leen seexul xaddim waxoon jamono seexul xaddim annaas yowma juma asaamina wal ishrin min rajabil fard ama talsasin wa salla bihim rakaatayni waqta duha amarahum bi an yanwu bihima attawbata nasuh kulla waqtin wa saa kullu ma raghibtum fihi wa asura alaykum fa tuubu ila baarikum yuwassilu ilaykum kama tuhibbun wa kullu ma rahibtum anhu wa lam taqdiru ala izalatihi ankum fa tuubu ila ila rabbikum yaxul baynakum wa baynahu bila mashaqatin wala tazlimu rabbakum wala tazalamu fi anfusikum wa zulmu rabbi tarku imtisaali amrihi waqtihaamu nahyihi wallahu ganiyun wa zulmuhu yujib raddal amali wala yas billah wa zulmul xalq ka xëybati gayrika wa sabbihi wa shatmihi min gayri xaqin sharciyin wa huwa faqir fa in zalamtahu yuxas lahu min xasanatika in kaanat indaka xasanat wa illa mm, lahu min wa illa min sayiaati li sayiaatika dalika واصل ذلك رؤية عيب غيرك دون عيوبك فلو اقتصر كلكم على عيوب نفسه لكفت عن عيب غيره وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعليكم أن تتوبوا وتصلحوا بينكم وبين من جاورتم من الوزراء والولاة والأصحاب حيث كنتم فإن شكاية الناس إياكم في كل ناحية تولدت من عدم التوبة والحاصل أن التوبة هي الجالبة للمسرات والدافعة عنكم جميع المضرات فلازم التوبة النسوه يحول مولاكم حالكم إلى أحسن الأحوال وإنما وصل ataytukum haza bada injirarin ala jamihi wala yunabbiuka mislu xabir sëriñ yuballighu shaahid minkumul am na beneen jotaay bu mu séqoon nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bisub keroog sëriñ tubaa seexul xaddiim mi ngi ko ciy wax ngëneel yi mu am ginnaaw bu mu jéggalee noon yi ngëneel yi ko ci suñ boroom defal moom seexul xaddiim te jotaay boobu ma ngi ko doon netti li kii di sëriñ Moulay Bousso di ko wax ne suñ boroom nee na ma lii di noon yi ginnaaw bu ma leen jéggalee lépp loo xam ne nii def nañ ko ci rafetaay maanaam ci lu baax bu fekkoon na jaamu ko ci lañ ci jublu moom suñu leen ci waroo naw fay ciw yiw bisub keroog loola man jox na ma ko ma moom ko ak lii di sama ñoñ mu nekk ay yiw yu dolleeku ci suñu kaw ngëneel yooyu nag la ko seexul xaddiim doon nettali moom sëñ Moulaye Bousso loola itam sëñ Moulaye Bousso bindaatoon na ko na ko seexul xaddiim waxee ñu teew lu ko lama tawajjaha a'daa'uhu a'daa allahi ta'ala ilayhi bi kulli su'in wa idlalin wa ihana xatara bi baalihim zalamu otuwan wa xasadan min indi anfusihim afa anhum jamian li wajhi llahi taala bila iltifatin ila ma yukaddiru alxaatir mutawakkil ala almawla alkarim nuqta xatabahu alkarim bi annahu tatakarram li aadaika aadaihi wa ana xaalixul karam wa akramul akramin fa bi karami akramtuka bi tawjih xasanati jamii al aadaa min awali mawludin minhum ila axari mawludin minhum dakaran kaana aw unsa law abadani bi xaqin ila xasanatika wa xasanaati almutaalliqina walmutaalliqaati bika wa baddaltu ma asa an yakuna alayhim min sayiat xasanatin lakum bada tawjih sayiat ila al aada fa hada huwa aljazaau alawfa inna hada kaana lakum jazaan falhamdulilah wa shukru lillahi alkarim allazi niamahu la tuaddu wala tuxsa wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli alazim والشاهد على هذا qawluhu radiallahu taala an afawtu an il ahdai turan li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfa wa qawluhu allahu min kulli karimin akram man ammahum qaadalahu takarum nafaana allahu tabaraka wa taala bihi fi daarayni wa bis bii di bisub fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi di weeru safar sëriñ tubaa seexul xaddim mas na cee wax kii di mu Moulay Bousso ndax dafa amoon bis magu sëriñ Moulay Bousso bii di sëriñ Moodu Bousso mi njëkk a wuutu kii di sëriñ Mbàkke Bousso amoon lii di aw bëy yituwoon ko ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim addiya seexul xaddim waxoon na sëriñ moodu buso mu jël bëy woowu wecceeku ko ci lii di am xar ginnaaw ba mu ko defee ci lii di am xar sëriñ tuuba seexul xaddim waxoon na ko mu denc ko ba mu soxla ko ca bisub fukki fan yaag juróom ñett ba mu jotee sëriñ tuuba seexul xaddim woolu woon na kii di sëriñ mulaay buso di ko wax ne na jël gàtt booba defar ko boo noppee nag def ko lii di ñaari saam te nga jox benn saam sa bàjjen soxna aminata moomu mooy waajuru cheikh abdu xaadir mbàkke baneen sàmba na nga jox ko sa bàjjan soxna anta buso te nga wax leen ñu defar ko it ma ko ginnaaw ñoom buñ ko defaree pare indil ko kii di sëriñ tubaa seexul xaddiim woolu woon na njaboot gi ngir ñu xéewlu ca ca jataay boobu sëriñ mu mulaay buso mang ca woon ginnaaw bi nag wax na kii di sëriñ mulaay buso ak ña nekkoon ca jataay ba di leen wax ne bisu tey biire lépp lu ma am ci laa ko am te yéen itam lépp lu ngeen am ci man ci bis bii ngeen ko amee te fonkle ma ko bisub màggal booba nag sëriñ Moulaye Bousso sax def na ci lii di ay bayit moo nekkoon fukki fan ak juróom ñett ci weer wi di weeru safar tombe woon nag muy 1341 ci gàddaay gi dëppoo woon nag 10 octobre 1922 ñu teewlu bisub keroog li ci sëriñ Moulaye Bousso bind ak ni ko ko seexul xaddim waxe annahu radiyallahu anhu axbarana bi anna min mawaahibihi laduniya wa fuyudaatihi qudsiya amru taxzim al yawm al azim alladi huwa al yawm min safar al xayr الصديق أنه لما قرب اليوم عام أمسس قبيل الإذن منه بالتعظيم وافق أن أخي محمد المسوبي أهدى إلى الشيخ شاة من المعيز بواسطتي فلما أخبرته بالصاد أمرني باستبدالها خروفا فلما رجعت إليه بوجود الخروف أمرني بصونه عندي حتى يأمرني بما يشاء ولما وصلنا إلى اليوم الثامن عشر من الشهر المذكور دعاني وأخبرني بأن جميع ما نلته من المواهب والفيودات والفضائل wa jamiia ma niltumuuhu wasalat ilayna fi hada alyawm fa amarani bi dabhi alxaruuf lahu bi yadi niyaabatan anhu fi dalika ala niyati taazimi hada alyawm famtasaltu summa amarani bada dalika bi qismihi qismayn wa sallimi alqismayni li ammatayka aminata wa hannata almusibiyatayn kama zakara lafz alham lafz alamma bi lisanihi li tuslihahu lii ma utihi lahuma mima yanbaxi min ataam wa bada alislah atamana minhu maa jamaati min al ahli wal jiraan moom sëriñ Moulay Bousso mu nekkoon ku jege ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu ko ko waajuram jébbalee ci atum 1340 ci gàddaay gi nekkoon bisub fukki fan juróom ci weer wii di weeru korite la ko sëriñ mbàkke Bousso jébbaloon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim booba nag la ko seexul xaddiim jël taf ko ci boppam ba tax na lu baree baree bari moom sëriñ Moulay Bousso xam na ko ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax seexul xaddiim daana ko woo di ko nettali lu baree bari te bu paree sëriñ mu laay bu sa day jël bind ngir bañ a fàtte loola itim taxoon na mag ñim loon ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi woon ko xel bu baax a baax ndax jarbaatub seexul xaddiim bii kat ku seexul xaddiim fonk la mu nekk ci ron seexul xaddiim nekk itim ci wàllu lii di xam-xam bi ndax kat loola rek la waajuróom wi jàng te loola itim la waajuróom wi nekkoon ci seexul xaddiim loola itam rek la ko seexul xaddim jàppe di ko ko ko xoole kon moom dawul fàtte ndax dadaa bind sëriñ mu laay bu sa noonu la ko amale diirub bi ko waajuram wi jébbalee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim noonu itam ni la ko doon defee ci ron seexul xaddim ba ci atu 1927 sëriñ tubaa seexul xaddim génn lii di àdduna cheikh mamadul moustapha mbàkke toog xalifa général des mourides sàkku itam ci sëriñ mu laay bu sa ak kii di waajuram sëriñ mbàkke bu sa sëriñ mu laay bu sa wéyal ni mu nekkee woon ci seexul xaddim mu wéy nekkee ko mamadul mustapha mbàkke seex mamadu mustapha njaareem la ko bàyyi woon comme na ko fa seexul xaddim bàyyee woon ba na fa la sëriñ mulaay buso wéyal ba ni mu toogee xalifa sëriñ mbàkke buso lay dooga ñibbisiwaat ci dëkk bii di gédee mu nekk njaareem di jàng ak a jàngale di yar ak di liggéey foofu sax ci njaareem amoon na fa ay tool ci dëkk bu ñuy wax caareen jama mi ngi ci ginnaaw njaareem njaareem googu itam amoon na fa sax lii di kër ci ndigalul cheikh mamadul mustapha mbàkke fii di mbàkke bawal itam amoon na fa lii di kër lii di gédee léegi dëkkub sëriñ mbàkke buso itim amoon na fa lii di kër tuubaa lasar moom la ko sëriñ mbàkke buso jagleeloon ci atu 1935 la ko fa dël sëriñ mu laay buso dem na itim lii di màkkatal mu karama ci atu 1928 aj googa mook cheikh mamadul faadal mbàkke ak maam cheikh anta mbàkke ak waajuram sëriñ mbàkke buso ak ñu takku ci yoonu murit ñoo àndoon ca aj googa kon ku takkoo woon ak waajuram la woon sëriñ mu laay buso ku bàyyi woon xel mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tuubaa la ba ci ñu baree bari biñ génnee àdduna defal na leen lii di marsiya ngir di leen jooy ak di bàyyiwaale xel jëf ju baax jiñ doon def ci kaw suuf kii di maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina bi mu génnee àdduna ci atum 1930 sëriñ mu laay buso way na ko ay way ci ab marsiya wax ñu bis ba ak weer wa ak lii di fan ya ba ca heure ba sax ngir jàmbaaru seexul xaddim ba ñu teewlu marsiya bi mu defal maam cheikh ibrahima fall keroog bi ñu dëddoo القاسمي خليل الله من شرفه أكرم به من مريد حاز مرتبة الأشياخ برا صدوقا بالحدى كلفة قد بايع الشيخ قدما خادما فطنا يبقي رداه وعنه يحمل الكلفة وافاه إذ دره السمين منتصر فأحكم النصب بتقديم مغترفة الله جاهد يقف إسر قائده إلى الهدى وعن المنهاج من حرف رقاه من من بعد ما رباه وتحبه بما به من مياه الغيب قد غرف من للطريقة يسجي نحوها نفرا ومن ينير قلوب mahbuban xuflan xaliqa wa man li xidmati janbi cheikhi muhtasiban yaxtaaduha wala del aqraani ma ma daw fa man lil hayaali baidil xilli man li zawil xaajaati min man lil yataama baxdu wa don fa fa jaasi ya rabbi ibrahima ahsana ma jaasayta abdan wa barik fi lesi xalfa xalafa fi aami tamsasin ha mabda'i suhuri isha sara alxalilu ila dayyaani munsarifa allahu akrimhu nuzlan wa rahibhu fi qabrihi wa mu xawifan anhu rabbi kafa wa fi fasihi fanal firdawsi askinhu bil الخضر من سندس الأثواب ملتحفة وعن مسايخ الأبرار الحق بمن يشفع فينا boobu la defal Cheikh Ibrahima Fall làmp Baabul Muridiina keroog bi mu ñu dëddoo mag ñu bari ñeneen itam defal na leen lii di ay marsiya ginnaaw ñoom bi ñu dëddoo loolu itam taxoon na lenn ci naar yi ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy mbokki boppam itam way nañ ko lii di ay way ngir leel ko ko moom moomu ndax melokaanamkat kat lu yéeme la woon kii di sëriñ seexu buso di doomu sëriñ aafiya soo defal na ko itam lii di ay waay ngir farlu gu sëriñ mulaay buso farlu woon ci ëttu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu teewlu ko ala ayyuha tilmis ya saahi ya rajul alayka hadaya madhi cheikhika fi l ajal fa xidmatu awla wa illa fa madhu xaqiqun fa sib duna tasawufi والكسل بمدح شريف صالح غير طالح عليم حليم قائد لله جل حميد رحي بالكف مكرم ضيفه وجيرانه ما زال بحرا ولم يزل حلفت anni lastu anfakku maadihan lahu gayra anni qad wanaytu an il misli la in qiila man haada fa qultu l imaama man abuhu imaamu nnaasi mawlaaya qul ajal fa taala ilahu nnaasi mahyaaka muddatan bijaahi xadimi lmurtada sayid rusul alayhi salaam allahi wa sahbi sarmadan ma al ali ma rabbal wara qad qadal amal fa yaa cheikh min tilmisin kam za hadiyatin taqabbal wala tardut wa in kasural xilal ku yéeme la woon moom sëñ Moulay Bousso ku kiimaane la woon ku naari daa bàyyi xel la ba tax na naar yi daa ñëw di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim daanañ xam ne jarbaatu seexul xaddiim bii kat nitug yàlla la te ku kiimaane la ba tax na ñoom sax daanañ ko way ba ci naar bi ñuy wax muhammad ibnu muhalla moom itam way na ko ay way ñu teewlu ko hal fi salaami ala mawlaaya min ba'sin min zairin taahimin man hubuhu kaas min aarifin lil musuubiyiina haqqahum ahlu sufuufi wa ahlul izzi fi nnaas wal ilmu wal xilmu wa taqwa wala siyama cheikhu siyuxi tabibi almahiri aasi Mouhamed Mbacke Bousso al Mourtada Chiaman tawdul huda wal ulumi shaamixi raasi waqad talathu banuuhu fi razanatihi tuuba lahu min zirafi tabbi akyaas kullun lima qad tawalla min fadailihi ahlun isaun bila mariin wa ifsas wa inna mawlaaya hada fi razanatihi wa fi duqaahu la zuur rifqin wa inaas wa gawru aqlin baidun laysa yudrikuhu ahlul uquli bi misbaarin wa miqyaas limislihi yarhafu al aqlaamu mar mirhafuha tujri mahasinuha fi matni qirtaas wa huwa ahlun ladayna bisalaami wa in yazuruhu gayru saalihi wala nnaas wala yahuuqu muhibban an ahib haibatihi lasima shifa wal risaaxu lil kas ma kaan ajruhum is xuwilu sharafan bi an yuzaaru ala al-aynayni wa ar-ra's wa yansuru lutla al-maknuna fi sadafin minhum barqun wa aflamun wa anfas am na baneen naarit buñ doon wax Ahmed Saloum moom itam ku nawoon kii di sëriñ Moulay Bousso la ba def na ci lii di ay way ngir jagleel ko ko ñu teewlu way yi ko Ahmed Saloum nekkoon naarub gànnaar itam way ila bahri nada xutbil kirami wa mawlaaya ala asna salaami fa inni qad aqamtu bi xayri daarin lada alxibril humaami min alhumaami sharabi la yumaasiluhu sharabun taami الذي لا يماثل في الطعام ويسقيني الكؤوس منعنعات بمفتول الدمن المدام ويبذل للعلوم وما سواها كمعرفة الحلال من الحرام يفاكهني jasallahu xayran bi ahsani ma yakunu min alkalaami yuhaddisuni wa yusifu ma ra'ahu ma alxujjaji bil baladi alxaraami ka baytillah suma abna qamis wa bi rukni alyamami walmaqaami wa zamzam walxujun biladi taha imam alanbiyai badru tamam wa taybatan bihi taabat wa faazat ala kulli albiladi ala addawaami wa yusifu lilbaqiya wa ma hawaahu hunalika dalbaqihi min min alkiram ala xayri alanami min assalaami salatullahi tasfahu bissalaami ku naar yi bàyyi woon xel la moom sëriñ Moulay Bousso loolu rek ay firnde la yuñ leen doon indi Jibril ngir wax leen ne naari bàyyi woon nañ ko xel ba daanañ ko way lii di ay way ci lool nag la sax di liggéey di jàng ak a jàngale ba ni mu génnee àdduna ci atum 1983 bi muy génn àdduna moom sëriñ Moulaye Bousso moo toog toogaayu sëriñ Mbàkke Bousso nekk ñaareelu xalifa sëriñ Mbàkke Bousso ci atum 1971 ba 1983 mi ngi génn àdduna moom sëriñ Moulaye Bousso guddik samdi ba seddi dimanche di ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi di weeru décembre ci atum 1983 samedi 24 décembre 1983 la sëriñ Moulay Bousso génn àdduna samedi bi nag moo nekkoon 24 décembre bi sëdd dimanche di 25 décembre mu tombewoo nag ci atum olof bi muy bisu gaawu fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi di weeru gàmmu ci atum 1404 ci gàddaay gi bisub gaawu fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi di weeru gàmmu ci atum 1404 ci gàddaay gi ci Tuubaa gede googu mu nekkoon xalifa sëriñ ba mbàkke buso kii di cheikh abdu xaadir mbakke moo ko taxaw ci xilaafak sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke ñu denc ko fi ñu denc waajuramam wa di barabu sëriñ mbàkke buso moom sëriñ mulaay buso ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ moodu mulaay buso moo ko wutu ci atu 1983 ba ci at mi di 2009 2009 ba nëgëni nag ñaareelu xalifaam bi fi nekk mooy sëriñ ceerno buso mulaay muy sëriñ ceerno buso mi nekk fii ci tuuba lasar moo fi toog ba nëgëni sëñ Ceerno Buso mi sax moo nekk xalifa sëriñ Mbàkke Buso jamono ji boole ñaari xilaafa yi muy xilaafab sëriñ Mulaay Buso ak kii di xilaafab sëriñ Mbàkke Buso mi maamam kon ñaareelu xalifa sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Ceerno Buso Mulaay la moo fi toog 2009 ba nëgëni sëriñ Mulaay Buso am na nag bis buñ koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru korite ci atum 1340 la waajuram wa sëriñ Mbàkke Buso faboon ko joxoon ko nijaayam ja sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bis booba nag lañ njaboot gi jël di ko ci fàttaliku ngir ñu xam ne ka li seen waajur wi am ci bis booba la ko am kon fukki fan ak juróom yu jot ci weer wi di weeru korite danañ amal lii di màggalug sëriñ mu lay busoo ñaanalaale ko ci santaale ko ca bu baax a baax ndax tey jii kat li ñu am ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci sëriñ mu lay buso la jaare ci sëriñ mu lay buso lim am ci ëttub sëriñ tubaa seexul xaddiim ci waajuram sëriñ mbàkke buso la jaare ak bis boobu di fukki fan ak juróom ci weeru korite oboon seen waajur wa jox ko ki ñëpp yaakaar di ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem ñii ñaan ci bindkatu sëriñ tubaa seexul xaddiim nga ka defal mag ñu bari lii di marsiya di sëriñ mu lay busa yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam yim fi bàyyi nag moo xam ay doomam ak lii di ay sëtam ci barkeem ngërëm lim am ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ak doomu seexul xaddiim ba di cheikh mamadul mustapha mbàkke amin Moustapha Mbacké amiin Moustapha Mbacké amiin